alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana wa xabibina wa shafiicina muhammadin wa ala aalihi ajmaciin mbokki jullit yi mbokki taaliba yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gii nga xam ne ci la ñu nekk di laylatul mawlid annabawi sharif ñu nekk fii ci tuuba almahrusa ci jumaay sëriñ tuuba ju mag gi ci ndigalul cheikh muhammadunil muntaqa xafisahu llahu taala wa raah daairatu muqaddamatul xidma ak daairatu rayaxiin am ndigalul daje fii ngir dundal guddeeg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ca na ko sëriñ bi daan dafe ñuy ndokkeel mbokk yépp di leen sargal di tàmbuli liggéey bi ak kàdduy soññee kàdduy fàttali waaye kàdduy delloo nit ñi ci sabab yi tax ñu woote lu mel nii ginnaaw bu ñu nuyoo kilifa yépp ñaanal leen nuyu mbokk jullit yépp ndokkeel leen ñi ngi feggoog sunu mbokk sëriñ Fàllu bu sa Tàmba di ku ñépp xam di doomi dëkk bi defe lépp ci dëkk bi bokk ci boroomi xam-xami dëkk bi jataay bi it miin ko lool ci joxe fi ay bind yu am solo moom lañ fas yéene àndal ak tey ci tàmbuli liggéey bi ci ay kàddu yoo xam ne mi ngi jëm rekk ci dundal guddi gi waaye delloo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wàccuwaay bi mu am ak dayoo bi mu am ci biir mbindi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mi nga xam ne moo nekkoon xadimuhu radiyallahu anhu kon tomb bi muy waxtaane mooy annabiyu muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min xilaali kitaabaati Cheikh loolu nag di lu yaatu lu bari lool waaye mu tànn ci lenn benn bunt insha allahu taala wala wenn xaraf ci qasida gi di muqaddamatul amdaax fi mazaayil miftaax xasi bunt boobu walla xaraf woowu la ñu fas yéenee leeralal te tojal ñu ko jottali risaala bi ci sëriñ bi dëxëñ bëgg jullit ñu xam ko waaye bëgg ñu dund ko waaye bëgg ñu jëfe ko kon ñu ñaan mbokk yëpp ñu may sëriñ Fallu nopp ak xel fas yéene taataan wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi dawi ridwaani wa tamkin bokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Euh, ñoo ngi jiital sant suñu boroom subhaanahu wa taala di julli ci mustafaa sallallahu wa sallam di leen nuyu nuyub lislaam bu ànd ak ndokkeel ci xew-xew bu mag bi guddi gu tedd gi nga xam ne moo ñu fi dajale di leen ci ndokkeel bu baax di ci ndokkeel jullit ñépp waaye di jiital ci ndokkeel gi suñu kilifa bu baax gu tedd gi ci suñu kanam di Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba mu àggale li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp di jaar ci moom nag di ndokkeel mboolem jullit ñëpp di ndokkeel mboolem mbokki taalibe yépp di e, rafetlu bu baax taxawaay yu am solo yi nga xam ne suñu bokki daara yi ñu ngi koy taxawee ci ndigalal sëriñ bi te mooy di jéem seen kem kàttan di dundal guddi gi nga xam ne ku ne xam na ni mu tollu ci diine ci lislaam toll koy ci xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa ndax ci la ki nga xam ne moo xettali doomu aadama xettali mbindeef yépp ci la feeñ jamono di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ni ko suñu mbokk seex sëñ Mbàkke Abdourahman waxe du ñu guddal ci nuyoo yi dañuy sof rek fi mu daaneele ginnaaw bi ñu ko santee bu baax itam ci ubbi ubbi gu rafet gi mu ubbi ni mu ko waxee rek dañuy baaxoo at mu jot ñu jël benn tomb boo xam ne dafay laal dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu waxtaane ko ren nag ñu xalaat xalaat bu am solo boobu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam gi dafa yaatu lool te barkeel lool te bari lool ay bind waaye ñu gis ne it Cheikhul Xadim radiallahu ay mbindam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cee am wàccuwaay bu rëy rëy daanaka booy xool sax li mu bind muy woy muy wesar ginnaaw boo xamee ne kañ yàlla ak sant yàlla ak wane suñu boroom ni mu toll ak fi ñu ko war a teg bu jàllee li ci gën a ëpp wàccuwaay gën cee fes mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wane ay jikkoom ak ay meloom ba ñu mën koo roy kon loolu mooy jubluwaay bi moo tax képp koo xam ne yaa ngi settantal taalifam yii ak mbindam yi li ngay njëkk a seetlu ci lu leer mooy fés gu jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxsiyaam fés gu mu fés ci biir mbind yooyu yi muy saxsiya boo xam ne jëmm euh, personnel wala jëmm joo xam ne dafa bari ay wàll yu yu mu yu mu yu mu ëmb loolu nag warul jaaxal kenn ndax lu bari ci li mu bind mbindam bu barkeel mii moom Cheikhul Khadim moom am na ci lu lu mu jàppee loo xam ne dafa bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa lii mu tuddee ay xasaayid day wax ne xasaayid yi dafa bokk ci mujizaati Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne dafa yeex a ñëw dafa ñëw ci mujjug jamono. waaye loolu it mën naa bañ a jaaxal kenn bu ñu gisee ne ba tey cër bu duun bu rëy bi nga xam ne jagleel na ko mbind moom yi ngir wone ak leeral lu rëy lu bari lu am solo ci yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam làq na ko am na ko ci ay jikko ak ci ay melo yoo xam ne yu mat a xam la ngir man ko cee roy ndax ñu mën a jariñu xasida gi ñu tànn sax war a waxtaane ci moom benn bunt boo demee ci biir xasida gi am na fu muy waxe naan tagg gi may tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam day yulli day sotti ab ensemble maanaam ab mbooloo lu am solo ci ay jikko ak ci ay njariñ yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làq na ko ne te moom mooy géej gi nga xam ne moo ñuy xëccal njariñ di ñu jañal lor yabusum tidaaxi jumlatan xaazaha nabi min an nafi wa huwa al baxru dul jalbi wan nafi waaye fés googu jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbind sëriñ bi itam lu neex a dégg la bu dul lee ma wax it am na leneen lu koy firndeel te mooy ne li mu wone ne tagg gi muy tagg rasulullahi sallallahu alayhi sallam ngir feeñal ngëneelam ak siiwal ak baaxam day luñ ko digal day luñ ko digal loo xam ne suñu boroom walla ci lisaanu xaal bu buy wax ak moom di ko wax ne ko na na ko tagg tagg woo xam ne day yéeme te nekk tagg woo xam ne dafay wedam loo yuxaatibu nii maa qiida lii bimdaxannahu madiixan ajiban mufximan faayiqa ra'yi yooyu yëpp nag boo ci boolee ne moom bi buy tagg rasulullahi di wax ci moom di leeral ay jikkoom ci ay mbindam jubluwaay ba mooy liggéeyal ko liggéeyal ko liggéey bu rëy boo xam ne ku ne gis na lim ci def ak li ko ci defal loolu moo tax may wax ne kon xasaayit yu bari yi ñuy jàng dëgg la di ci barkeelu am na solo lool waaye war nañoo bàyyi xel wàll gii nga xam ne mooy wàlluk siira gi nga xam ne sëriñ bi mi ngi tagg yonent bi waaye ci waxtu yu mu koy tagg mi ngi jàngale siiraam di wone ay jaar-jaaram ngir bëgg ñu roy ko bëgg ñu tomp ñu ñu ñu xeeñcu mbooram xeeñcu mbooru saxaabaam yu tedd ya nga xam ne ñu àndoon ak moom ngir loolu mooy tax roy gi mën a am te roy gi itam ndigal la loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko sant ndax moo xam ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana wax ñu it ne lépp loo xam ne lu leen yonent bii indi la na ngeen ko téye waaye lépp lu mu leen tere la itam na ngeen ko bàyyi te loolu mënee su koo xam te gëstuwoo ko te jàngoo ko te bokk na ci li la koy xamal gëstu mbindi sëriñ bi euh, gën koo nafaraat ba mën cee Eh, ba mën a xam fi ngay teg sa tànk ci roy yonent bi sallallahu alayhi moo tax nag ñaari daayira yi di daayira Muqaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahin tànn ren tomb bu am solo bii nga xam ne insha allahu taala bu ñuy wéyal lay doon te mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallama ci biir mbindi liggéeykatam bu mag bi di Abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ren nag ñu jël nag benn xasiida ci xasaayid yooyu nga xam ne tagg yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko tax a jóg muy muqaddamatul amdaax fi mazaya al sëriñ bi liggéey ko ci mbóoti xarafi wa innaka la ala xuluqin azim jël xaraf wu nekk ci wax ju tedd ju màgg jooju nga xam ne suñu borom subhaanahu wa moo ko wax di ci kañ waaye di ci wone jikko jii nga xam ne moom la ñu sëriñ bi jàngal ci yonent bi sallallahu alayhi sëriñ bi jël aaya boobu wala xaraf yooyu liggéey ci xasida googu xaraf bu ci nekk mu li mu mu mu mu def ci benn bunt boo xam ne bunt bi dana mat fukki bayit ak ñaar ba xasida gi jeex ren nag ñu fas yéene tàmbali insha allahu xarfu nuun nga xam ne da cee ñëw ñaari yoon muy nuun gi ak nuun gi ci idgham muy ñaari nuun yi ñu jë ñu tànn nag noon gu njëkk gi nga xam ne moo tàmbulee nahaani ya xubbullahi niamal muhayminu an il mayli amma xtiira walxaqu aqmanu nga xam ne moom la ñu ubbee moom la sëriñ bi ubbee xarfu nuun ci xasida gi sëriñ bi da ciy wone ne dañu ciy jàngal ne bëgg gi mu bëgg yàlla tax na ba du jóg mukk di jëm ci loo xam ne bokkul ak li ko yàlla tànnal te li ko yàlla tànnal mooy li yàlla tànnal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ci loo xam ne lii pas-pas la ci loo xam ne itam lii lu ñu war a wax la lii di lu ñu war a jikkowoo di lu ñu war a melowoo di lu ñu war a jëf loolu bari na lool lu mu koy indi ci ay mbindam di wax ne moom li ko yàlla tànnal rek ci pas-pas ak jëf ak wax ci lay sax waaye leneen loola nag la dox digganteem ak def safaanub loola te mooy wan ginnaaw li ko yàlla tànnal mooy bëgg gi mu suñu borom subhaanahu wa taala te nee na loolu mooy dëgg sax te dëgg moo gën a yay ñu di ko wax dëgg moo gën a yay ñu di ko jëf kon loolu liñ ci njëkk a déggee mooy kon képp koo xam ne ab jullit nga bëgg yonent bi bëgg sëriñ bi war koo roy war fexe ba cofeel googu ngay woote nga am loo ko firndeele te li nga koy firndeele mooy di ta di di sax ci jëfe ak a doxe ak a melowoo li nga xam ne moom la la suñu borom tànnal gis nga boo demee ci xutbatul idayn sëriñ bi mu ngi ciy digal jullit ñëpp rawatina taalibe yi di leen wax ne digal naa leen ngeen taqoog li leen yàlla tànnal ci ay wax ak ci ay pas-pas ak ci ay jëf ngir jëmmi yàlla daan nag su ngeen ko defut te mooy ngeen bàyyi fi li ñu leen tànnal ci yooyu di jëfe li leen seen bakkan tànnal su boobaa lam leen di jural wala fam leen jëmee mooy mitit ak coono bu dul jeex ba faw kon loolu mooy li ñuy njëkk jàng ci bayit wi nga xam ne mook ñaari bayit wala ñetti bayit di ci topp yépp dafa mel ne daf koy laytaaye li nga xam ne moom lañu bëgg a xamal ci sangam boobu nga xam ne moo di sallallahu alayhi wa sallam ci ay jikkoom ngir ñu man koo roy moo tax bayitu ñaareelu wi itam mu ne nabastu laga abdan li mawlaaya waxdahu xadiman liman an darkihi kallatal sunu foofu itam dangay gis ne day wone rek ni ko dëgg ñore ak ni mu wéetale boroomam ak ni mu bàyyeeg yàlla léppam ndax xamal nañu ne ngir nit ki mën a doon jaamub yàlla dëgg-dëgg mooy day bàyyi lépp lu dul yàlla lépp luy neen allaha lépp lu dul yàlla rek da koy sànni fële jël sa borom teg ko ci sa kanam doyloo ko nag moom day li mu am lépp looloo ko ko may moo tax mu ne sànni naa lépp luy neen te waxtu wi ma koy sànni maa ngi doon jaamub yàlla mii sama borom rek keneen ku dul yàlla amul ci man wàll keneen ku dul yàlla yilifu ma yàllaay sama sama borom te moom laa nangu itam ak moomeelam ci man waaye waxtu yu may doon jaamu bi yàlla rekk it maa ngi doon liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mag bi nga xam ne yonent boobu nga xam ne lu waay mën di wax ci moom gis nga mi ngi laytaay fi mu jëm ak fi mu ñu jëmee mi ngi koy laytaay wan nañu ne yonent boobu nga xam ne moom lay liggéeyal yàlla jox na ko ci jikko jox ko ci meloy biir ak meloy biti loo xam ne kenn mënta wax ba wax lu ko jot ba wax lu ko jeexal làmmiñ yépp lottu nañu ci jot dëggi-dëggi jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bayit bu am solo la woo xam ne wane na ci ubudiya gi nga xam ne moo dox digganteem ak boroomam waaye wane na ci ne ni mu doone abdullahi itam nag noonu la doone xadiimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lay liggéeyal te moom la ñuy xamal ci xasida gi bayitu ñetteel wi moom it mën ngaa wax ne soreewul ak ñaar yi ko jiitu woon ndax lépp rek da ciy wone engagement bu rëy bi mu engagé wu ci lépp lu bokkul ak luy dëgg lépp lu bokk ak diine loola sëriñ bi amu ca soxla amu ca defar amu ca ak yàq bu dee sax ak neen la loola moom da koy xeex wala ay caaxaan da koy xeex ba mu set wecc mu sànni ko ci àll ba loolu la firndeel ci nasaftu binaa almayni bilxaqi maadixa li fardin ala xuluqin wana danu daydanu nasaftu mu ne dindinaa buddinaa wala nga ne jurinaa maanaam bu dee ci ab tabax la nga dindi fondation ba te ak mboolem la ko téye woon lépp ci ay keno sànni fële bu dee nag aw doj la wala montagne la li alquran wax ne wa yasalunaka anil jibaali faqul yansifuha rabbi nasfa doj yi suñ boroom nee na bis penc wala bu bis penc di jege da koy mokkal ba mu doon sunguf mu jëri ko ba mu doon poussière kon baat bi sëriñ bi jëfandikoo fii baat bu diis a diis la waaye fi mu ko jëmee it dañuy xam ne lu diis la ndax dafa ne li ma buddi wala li ma màbbu wala li ma juri mooy tabaxu neen almayna lépp lu dul dëgg rek nee na loolu xeex naa ci sama xalima xeex ci samay mbind xeex ci sama sama defar ci liggéeyam bu réy bi mu doon liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci laa jaare nee na ba dindi tabaxub neen teg ko fële samp dëgg te waxtu yi moo koy def itam nag dama ko waxe woon ci yi ko jiitu rek maa ngi tagg yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy kenn ki nga xam ne lu waay baax baax lu waay am am jikko ju rafet lottu nga ci mel ne moom wala nga àgg fi mu àgg kon loolu it ba tey rek dafay wane ne yitteem jëpp mission bépp rek moo doon ñëw yëkkati kàddu yàlla gi nga xam ne mooy wéetal yàlla ak jihaat ci yoonu yàlla ba dëgg yay waaye neen itam dégg nga màbb loolu bokk na ci li ñuy jàngee ci bayit bi kon muy laytaay joo xam ne nag laytaay ju am solo la ndax bi mu ko defee ba àggalit daal nañuy won kon ne la ko tax a jóg dëgg-dëgg nag mooy wane nag yonent bi sallallahu alayhi wa mooy kan ak nan la ko yàlla def ak nan la mel ci liñ ci mën a xam ci bunt bii mu daal tàmbali ci bayitu ñeenteel wi ci ba ci xarfu nuun mu ne nawaytu dawaama dikri wa sukri xaadiman li xayril wara nicma alxasinul muzayanu wax ne sama yéene day mooy saxoo sant yàlla mooy saxoo tudd yàlla ak di ko sant gis nga fu mu fu mu waxee diggam ak boroomam lu ko war diggam ak yàlla rek da ngay gis da ci wane waale tagg ak liggéeyal gi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ne loolu day mel ne luy mottu li lee la yi sama yéene mooy saxoo tudd yàlla ak sant yàlla waaye waxtu bi may saxoo loolu maa ngi doon liggéeykatu kan su nga nag bu daal di jëm nag ca tagg ga nag ak wone kooku nag ki may ki may wane mooy kan boroom guddi gii mooy kan mooy xayrul wara mooy ki gën ci mbindeef fii mu ne amul moroom moom moomu nga xam ne mooy ki rafet lool ci biir rafet lool ci biti mooy ki nga xam ne taar bi mu am suñ borom moo ko ko defal moo ko taaral ndax moo ko tànn nga xam ne mooy taarub àddina waaye mooy taarub àllaaxira wax na ko ci ay xasaayitam ak yeneen bind wax ne Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mooy ziinatu dunya wal aaxira taar boobu nag moom la junj ci ni'mal xasiinul muzayyanu kon dugg na nag ci xamal ñu nag kan mooy sallallahu alayhi wa sallam di ko def nag ci uslub bu neex uslub bu yéeme boo xam ne day day day tudd ay melo di tudd ay tur waaye lu ci nekk rek am ay maanaa yu xóot di maanaay biir ak maanaay biti gis nga bi mu jógee ci eh, ñeenteelu bayit wi juróomeelu bayit wa la mu ci teg nabiyun rasulun nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun xalilun xabibun misluhu laysa yuclanu wala laysa yaclunu wane ne kii may wax nag ku taaru kii ku ñu taaral kii nga xam ne lu rafet ci àddina mooma lu rafet ci àllaaxira mooma nag kooku nag mooy su ngeen ko xamul nag mooy ki yàlla jox ak nubuwa mooy ki mu soloo waaye yemul ci solo ko rek jox ko xam-xamu wa waaye daf ko yónni itam nag mu nekk ku ñu yónni ci mboolem mbindeef yëpp ci jaami yàlla yëpp ngir mu war leen a woo jëme leen ci yàlla mu ne kooku mooy ngën ji jaam lu waay lu jaamub yàlla baax baax lu jaamub yàlla sell sell yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki la gënt lool dana fés ci bii di ci topp waaye nee na it mooy sang ba wa sayyidun wala wa sayyidin wa xayri sayyidin mooy ngën ji jaam waaye ni mu nekk ngën ji jaam it noonu da nekk ngën ji sang mooy xaritu yàlla ba di soppe bi suñu borom ba nga xam ne ku mel ne moom sallallahu alayhi wa sallam du du feeñ mukk du leer mukk walla dee su ko leeral mukk dee ko xam mukk dee su ko gis mukk kon bayit woowu itam wane na ci kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay daraja ak ay maqaama yu ko suñu borom jox te yee ca jiitu mooy nubuwa gi ak risaala gi boole ci yooyu mu ci boole muy yenn yi nga xam ne nag yàlla da ko ko jagleel muy def ko muy soppe boppam bu ko jege lool def ko muy xaritam boo xam ne itam xejj la boo xam ne la ko ko may loola ak jagleel nga ca waaye itam nag fu ko suñu borom jaarale la kon bayit yooyu yëpp dinañ ci gis am solo gi nga xam ne moom la tudd yàlla ak sant yàlla ak wàccuwaay bi nga xam ne ñaar yooyu am nañu ko rawatina noonu wax ne yéene naa saxal sant yàlla ak tudd yàlla yooyu mu mu toftal ci tudd lenn ci melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i jikkoom kon loolu ci mën a jànge ci bayit yooyu ñu jàll la waaye buñ xoolee nag yi ci topp yépp tàmbalee ci najiyun qaribun daakirun wa huwa shaakirun jawaadun karimun bil makaarimi yuxsinu lépp rek day sard day day day màng di di di leeral yenn ci melo yenn ci garaat yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam suñu borom da ko koo jagleel mu ne moom moom i kii may xamle mooy kii deeyaaleeg boromam ki nga xam ne foo ko fekk suñu borom a ngi wax ak moom suñu borom a ngi deeyaaleeg moom moo xam ci biir la wala ci biti ndax lan mooy da koo jege moo tax najiyun qaribun mooy ki gën a jege yàlla ci jaam ñi waaye mooy ki nga xam ne fu mu toll làmmiñam mi ngi tooy ci tudd yàlla fu mu toll ay cëram mi ngi toqi ci sant yàlla daakir la waaye shaakir la gis nañ ni muy lëkkalee ñaari yi ñaar yooyu moo xam ci fi mu nekkee masdar la wala fi mu nekkee ismu la ismu faal lu man a doon da ngay gis da leen di boole ñoom ñaar ndax boo demee ci alquranul karim suñu borom da leen di lëkkale waskuru lii wala takfaru nii la in shakartum wala in kafartum ak ak yu xeetoog yooyu moo ne nag sallallahu la wa sallam nag noonu noonu la yàlla bindee woon mooy fu mu toll mi ngi deealeeg boroomam fu mu toll mi ngi ndax ndax jege gi mu jege boroomam a tax waaye fu mu toll itam mi ngi tudd boroomam di sant boroomam doon it tab nag tab tabu suñ bu bu mag boo xam ne waxtu wu nekk day jëf jëfi njekk di jëf jëf yu rafet yoo xam ne du génn makaarimul axlaaq loolu it yaakaar naa ne ku ku dellu ci ci ci ci maanaam siiraam jàng kutubu sire yi di nga ci gis lu firndeel tabug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci rek hadis bu siiw bi nga xam ne xam nañu ko ñu euh, defe naa ibnu abbas wala sayyid ibnu aisha kenn si ñoom ñaar moom ak dettali wax ne sallallahu alayhi wa sallam su jekk ab tab la la la la la masa doon waaye rawatina su weeru koor masaana ñëw ba sayyidna jibril ñëw di nafaranteeg moom alquranul karim mu ne su boobaa mooy raw ngelaw li nga xam ne dafay riddi ngir lu lu lu jaar ci ay loxoom rek mu daal di koy joxe kon tab googu moom la sëriñ bi junj fii ci jawaadun karimun bil makarimi yuhsan yooyu yëpp nag bu ñu koy wax rek jubluwaay bi wala walla wala liñ ci mën a mën a jànge mooy ñu xam ne dañ ñu koo royloo waruñu ko yéem rek yem ci waaye dañoo war nag di ko di jéem di jéem a mel ne moom loolu it mooy li am solo ci waxtaan wi mu wéy di wane jikko yooyu ak melo yooyu yi sallallahu alayhi wa sallam melowoo naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihu bashirun liman lillahi bilxaqi yudinu nee na sallallahu alayhi wa sallam ku set la ku sell la ku ragal yàlla la ku baax la fa mbaax yem fala la waaye yamul ci mbaax rek waaye day baaxal alsaalixu almuslix la loolu boo demee ci xasida yu bari da ko ciy wax salli ala alsaalixi wa huwa almuslixu alsaadiqu sidqu salaatan tuslixu ci nuru dare ni yonente saa sallam ku baax la waaye kuy baaxal la itam nag baaxal googu bokk na ci li ko indi woon ci àddina islaax salaa sallam mooy almuslixu al akbar ndax ci islaax boobu ci la jaar ba société bi mu fekk ci àddina ci kaw suuf muy société ceddo jaahiliya mu liggéey ci islaax def ci ak defar ba mujj société boobu mujj nekk société bi gën a rafet jikko gën a baax gën a nekk model ci lépp ci mboolem société yi doomu aadama yi ñu ma sa xam yépp kon kooku ci islaax boobu mu doon ci muslih boobu mu doon ginnaaw bi mu nekkee saalix ci la ko mën a defee ci la ko yàlla dimbali mu def loolu mu ne waaye nag yonent bokk na ci mission moo doon da daan bégal képp koo xam ne dangaa jóg nongoo topp sa boroom woote yàlla da ko wooteloo ci ndigalam wa daa daaiyan yenn llahi waaye mu nekk bashiran wa nadira yooyu yëpp sëñ bi tudd na ko ci bayit yi day bégal képp koo xam ne li mu la digal li yàlla digle yaa ngi koy def mu lay wax ne la soo ko dee def ak di la ko ak di la bégal di ne la lii ngay def soo ko bàyyiwul boo demee ki sa boroom da nga gis lu la neex da nga am mbégte moo tax mu ne waaye nag kooka mooy ki nga xam ne dafa nangoo topp li nga xam ne moom la ko yàlla sant kooku lay bégal mooy bashirun liman lillahi bilxaqi yudaanu mu tekki ne nabihun adibun du xayaain muhaddab muhaddabun nadirun liman bilkufri walshirki noonu sallallahu alayhi wa bokk na ci ay jikkoom mooy ku yëkkati ku jikko la ku yëkkati ku melo la ku tedd la waaye koo xam ne it dafa am jikko ju baax am ab yar am teggiin ba noppi bari xam-xam lool tey xamle yar boobu ak jikko jooju ak tedd nga jooju ak teggin yooyu doonoon nit borom kersa ku amoon kersa la loolu sahaaba yi dañ koy seede lu bare bari bare ay xadis bari rod na ci ci ci ci ci ci téere yi yoo xam ne day day wane ne ni ko yàlla maanaam binde woon mu am personnalité nit ñi wekk ko wormaal ko ba ku ko gis sax doo ñemee siggi xool ko ni ko Seydina Ali yu melale woon wax ne même buur yi gën a màgg sax buñ jàkkaarloog moom dañuy sëgg waaye teewul moo ëppoon kersa ñëpp kersa diggam ak boroomam waaye kersa digganteem ak moroom ak ak ak ak ak yàlla yi waaye bari kersa googu nag teewul taxul muy wéyaale wala muy muñaale loo xam ne dafa jëm nag ci lu mu war a xamle ci lu mu war a digle wala lu mu war a tere wala lu ñu def ci kanamam loo xam ne dafa wuuteeg li yàlla bëgg nag mu war koo dindi nag sànni ci àll ba kooku moom kersam du ca jëm kon kersa gi nga xam ne moom la yàlla tagg moom la sallallahu alayhi euh, amee woon te rawoon ci ñëpp nekk ci royukaay muy koo xam ne suñu borom da koo sellal ci lépp ci bépp melo mu nekkit nadir comme ni mu nekkee bashir nee muy bégalee ku nangoo topp yàlla noonu lay xuppe itam képp koo xam ne kéefër ak bokkaale yàlla loolu suñu borom tagg na ko ci alxuraan wax ne yàllaa ko wooteloo ci ndigalam muy làmp buy leeral waaye day bégale waaye day xuppe itam kon loolu Sëriñ Tuubaa daf ñu ko xamal ci melo yonent bi sallallahu alayhi xam ne yooyu ci ci mission la bokkoon te lu mat a bàyyi xel la bayit bi ci topp itam mu wax ne nasihun bila gishin alimun muallamun saxiyun bila mannin kalaaman yulayinu nee na sallallahu alayhi wa sallam ku daan laaye biir la dafa laaboon biir waaye da daan laaye biir itam te laaye biir gi itam daawu ci dugal ay wor nit ki léeg lekk danay digal nit dara fekk dafa am lum ca laxas ca biir waaye moom sallallahu alayhi wa sallam laay biir na aw xeetam mësu xamal dara lu baax te tegtalu leen ko lépp lum xam ne buñ ko defee mucc àddina ak alaxira jàngal na leen ko dund na ko wan na leen ko bañ roy ko ci moom saxaaba yi jamonoonte woon ak moom roy ko ci moom ba loola des fi di sunnaam soo xam ne képp ku ko roy danga nga mujj te da nga jariñ te loolu ci ci ci ci an nasiha gi nga xam ne moo ñu jàngal ne diine ba diine jeex lépp nasiha la te ku ne xam ne ne an nusxu maanaam laay biir Sëriñ Tuubaa wax na ne moo gën sax jihaad ci yéefar yi su summa nasihatu li ahlil baari xayrun min al jihaadi fil kuffaar yi sallallahu nag mooy laay bii laa laa laay la maanaam ki dàq laay biir ci ay mbindeefam ndax moom da koy def bilaa xishin mu nekkoon ku bari xam-xam lool raw ñëpp defe na at yi jàll rek ja waxtaane nañ fi jàngale nañ fi an nabiyul muallim waaw euh, innama bu'ithtu muallima donte xadis bi am nay wax ci isnaad bi waaye wax nañ ne loolu moo ko wax wax ne yàlla daf maa yónni rek ngir ma nekk ab jàngalekat suñ boroom nag moo ko jàngal moo tax mu ne muallam muallam wala muallim yëpp mën na nekk muallam suñu borom moo ko wax ne ko wa allamaka ma lam takun taalam sa boroom moo la jàngal xamal la loo xam ne xamoo ko woon moo tax ku dul moom moo la raw moo la raw ndax moo jàngal ñi raw ci xeet wi moo leen forme ba ba ñoom ñëpp nekk ay fóore waaye noonu bare woon xam-xam di ab jàngalekat di ab yarkat noonu yit la tabee woon lool waxoon na ko ci ginnaaw te buy tabe buy joxe itam da lay jox te yàlla tax saxiyun bi laa mën nin day joxe te du ñax du du du jox nit kii naan ko su bu maanaam bu dul woon ak mën a wala maa tax nga mel nii wala su ma la defalutoon nangam loolu sa alayhi wasallam daaw ko def lépp lum la jox yàllaay tax mu di la ko jox te it nag waxoon nañ ko léegi tabe gi moom foo ko takk wees na ko noonu itam la daan nooyele doom kalaaman yu lay yinu te moonte bu ko neexoon mu dëgër kàddu lool waaye suñu boroom moo ko tagg ci alquran wax ne ko yow yàlla def laa def ngay ku nooy yërmande suñ boroom moo wàcc ci yow nga nekk ku nooy waaye boo nekkoon ku dëgër ku naqari deret ku ñagas ay wax ñagas ay melo kon kenn du la jege kon ñépp ay daw sori la waaw fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galita al qalbi lam faddu min hawlik kon loolu itam defe naa ne kuy kilifa ko ne jàpp naa ne war nga cee mën a roy sallallahu alayhi wa te xam ne kenn du magg ba gën koo màgg kalaaman yu lay yinu gis nañu suñ borom bi mu yebalee Seydina Moussa ak Seydina Haroun ci firawna ak li firawna yi kàccoor kàccoor lépp lu mu leen wax fa quula lahu qawlan layyina layyina la'allahu yatadakkaru aw yaxsha su ngeen demee na ngeen nooyal seen kàddu ndax mën naa am mu fàttaliku yàlla wala mu ragal yàlla kooku nag ñooñu nag sallallahu alayhi wasallam mooy seen royukaay mu ne najibun ajibun naasibun wa huwa naasikun huwa al amiru naahi lasil xayra yudminu mu ne sallallahu alayhi wa sallam tànneef la ku yàlla tànn la ci jikko tànn ko ci melo di ku yéeme di koo xam ne itam ku daan sonnal boroomam la naasib bokk na ci ay maanaam mooy ku daan sonnal boroomam la waaw fa ida faragta fansab suñu boroom moo ko wax saa boo noppeetee nag ci yi ngay def nag jaamu yeeg yooyu nag na nga góor na nga taxaw nag ci sonnal sa boroom liggéeyal yàlla ci jaam ñi moo tax bokk na ci maanaay naasib mooy ku daan leeral attey suñ boroom yi ku ko daan tasaare la ku ko daan jàngale la donte dana firi itam ku daan sonnal boromam yooyu ci ay meloom la bokk waaye way ku daan jaamu yàlla la teel na koo tàmm lool alifan nuska wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakata nujabaaw la bu seyri waxoon nee na bi muy ndaw la teel a tàmm jaamu yàlla ay cëram teel a toqi toroxlul boromam mu tàmm tàmm toroxlu tàmm xalaat ba bi mu doonee mag fekk na loolu toqi ci moom maanaam nekk lu loo xam ne dafa làgg ci moom waaye mooy mu ne al amiru naahi muy lu am solo sa saa sallam mooy diglekat bi diglekat lu baax bi mooy ki daan tere ab safaan ndax loolu ba ba tey dafa bokkoon ci mission mission yonent ab ay ay xam ngeen ne yonent yi dañu ñëw ngir digle lu baax ngir tere ab safaan waaye loolu muy digle nag da caa saxoon al xayra yudminu yudminul xayra mësta dañ ci ci di def lu baax moo tax digle lu baax ak tere ab safaan mu bokk ci mu nekk fardu kifaaya boo xam ne ci bokk na ci yi tax euh, xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ngëneel lu rëy li mu am ci yeneen xeet di ci des kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas lu tax taamuruuna bil maarufi wa tanhawna an al munkari wa tuminuuna billah suñu borom moo ne yéen xeetu sallallahu alayhi wa sallam yéenay ngën ji xeet te bokk na ci li leen ko may mooy da ngeen di digle lu baax di tere ab safaan ndax da ngeen a war a roy ci seen yonent bi nga xam ne mooy seen kilifa te mooy al amir an naahi kon loolu itam jàpp naa ne bind bi ñu ci mën a jàng mooy képp koo xam ne kilifa nga ci ñiñ ko sañ wax xëy na ma tàmbalee ci ñi ñi nga xam ne sañ naa leen a wax rek waaye ñu xam ne képp ku ku tooge toogaayu kilifa nekk ci sa kër yor njaboot wala nga yor mbooloo war ngay roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci saa boo gisee loo xam ne du noona lu yàq njaboot la luy dévier njaboot la nga yëkkati sa kàddu wax ca digle ca tere ca bu ko defee sa jaan wàcc ñu xam ne li la war loola dégg nga def nga ko ndax loolu ci mission yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokkoon mu ne waaye itam nag naqibun raqibun mustajibun musazzabun masihum malaadun wa huwa maaxin wa muxsinu nee na sallallahu alayhi wasallam naqib la woon maanaam jëwriñ la woon mooy kii yàlla doxale digganteem ak jaam bi di ko jox ndigal yi mu di ko àggale ci mbindeefam yi am na ñu ci borom xam-xam yi ñuy wax ne euh, baat bi mi ngi ko njëkk a fësale ci bi nga xamee ne nijaayam yi bokk ci banu Najjaar da leen a waxoon ne jël leen diw sàngam ngeen doxale ko sama diggante ak yéen lu ngeen soxla wax ko mu wax ma ko lu ma soxla ci yéen wax koo ko mu wax leen ko bi yàlla dogalee kooku jóge fii ñu ñëw ne ko dañoo bëggoon nga wutal ñu keneen ku taxaw taxawaayu kooku mu ne leen déedéet yéen antum axwaali wa ana naqibukum yéen samay nijaay ngeen te man maay seen seen jëwriñ kon jëwriñ la ci wàllu googu waaye jëwriñ la itam ci diggam diggante jaam yi ak seen boroom ci ni nga xam ne noonu lay jotle ndigali yàlla yi ak ay tereem ngir jaam ñi war koo jëfe yee yee ñu war koo moytu waaye ku daan fuglu boromam la ku daan bàyyi xel boromam la koo xam ne itam dafa joxoon léppam yàlla nangul ko mustajib mësta doya dal mukk ndigalal yàlla fu yàlla soxlaa rek jóg na joxe boppam ba mu jeex musalzab di koo xam ne it dañ koo sellal ci lépp luy nuru wàññi ko wàññi ci wàllu jikko ak ci wàllu mbind musalzab dana dina tekki ñàkk sikk ñàkk sikk ci wàllu jikko waaye dana tekki itam ci bi yonent bu mel ne moom ñàkk sikk ci wàllu mbind ay maa maanaam tawilul qaama waaye euh, maanaam nekk mu'tadil itam alxilqa nga xam ne yàlla da koo bindoon mbind mu jekk mbind mu rafet noonu ko sëñ baa di meleel rek ci dégg nga Jazbul yooyu yëpp xëy na damay bañ a guddal rek waaye yooyu mooy mooy musazzab benn baat waaye bu tënk lu bare bari la masiix ku fees dell la ak barke wala ku daan xett li mbindee fi la wala koo xam ne yàlla da koo bindoon ci wàllu ay tànkam tànk yi maase amul woon xóot-xóot melo yooyu yëpp ay melo la yoo xam ne masiix ambu na ko te sallallahu alayhi wa woon na ko muy wéeruwaay boo ne ku mas a wala nga mas a tiit boo ñëwee fi moom rek ak koo mën a doon danga mujj ndax dafa doonoon jàmbaar ak ak ak njàmbaaram euh, defe naa Seydina Aliyu firndeel na ko nee na bokk na ci liy firndeel ak njàmbaaram ak ni mu nekk woon làqukaay ak wéeruwaay buñ mësaan a dem ci xare ba xare bi metti ba ñu ñi gën a doon ay jàmbaar sax di deltu ginnaaw ñun ñii ci moom lañuy ñuy mooy gën a jege noon bi yaakaar naa kii kii nga xam ne mooy gën a jege noon bi kooku mooy ki gën a jàmbaare ci ñi nekk ci toolu xare bi ndax loolu kon moo tax mu nekk malaas ci fànn yépp waaye nekk koo xam ne day far kéefër di far ak neen di far itam lépp luy bokkaale tey rafetal itam nag jëme ci jaam ñi xam naa bayit bu mujj bi nag ma jeexal ci waxtu yu jot na mooy nag gis nga sëriñ bi bi mu laataan tudd askanu yonent bi ak tedd ak ak teddam fi mu bokk ni mu baaxee dafa njëkk a wane jikko yi di ko yàlla defal tudd na ak nubuwaam tudd ak risaalaam tudd ak càngam tudd ak xaritoom ak boroomam ak ak xejjam tudd ak jegeem boroomam tudd tabam tudd ak setam tudd ragal yàllaam tudd ak baaxam tudd ay tegginam kersaam laay biir xeetam xam-xamam am njàngaleem yooyu yëpp ak ni muy sampoo ci jaamu yàlla yëpp tudd na ko ba àggal soog a wax nag ne kii may wax nag nii mu gënee ci jikko nii mu nekk rayukaay ci jikko noonu la gën a itam ciw askan ndax askan wu baax bi ko yàlla tànnal mooy moo tax yàlla da ko da koo da koo waajal laytaayal ko wala baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi moo tax mu ne nasibun xasibun du ataaya muqaddamun huwa annaas wal miizaanu ni'mal mumakkanu ku teddu askan la ko bari ngor la lool ndax fi mu bokk tax ak ni ko yàlla def waaye ku bari ay teraanga la lu mu yor da koy joxe te lépp lu ko mas a dikkal lu nekk de loola du ko denc waaye da koy jox jàmm kon royukaay ngoog ci loolu waaye muqaddam la mooy ki yàlla jiital ci yonent yi jiital ko ci ñi mu yónni jiital ko ci ñu baax ñëpp jiital ko ci mbindeef yëpp mu ne daal su ma doon tënk daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu mel xoola Sëriñ Tuubaa wax ju rafet ji ak wax ju matale ji ak wax ju jekk ju ju yaatu ji mu jeexale bunt bi huwa naas wal mizaan loolu dara gënu ko rafet dara gënu ko mat huwa naas sallallahu alayhi wasallam nee na mooy nit ki danañ ko firee nit ki ndax borom xam-xam dañu wax ne mi cosaanal baat boobu ci turi yéen saa sallam mi ngi jóge ci euh, li suñ borom wax ne a yaxsuduuna annaasa ala ma aatihum allahu min fadli ñu ne annaasa ci aaya boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci jublu saa sallam suñ borom ne ndax dañuy iñaanee yonent bi ci lii ko yàlla defal moom ñi ànd ak moom ci ay ngëneelam te defaloon ko ibrahima ak ñu mel ne moom wala boog lu mel noona kon annaasu jooju mën naa taxaw taxawaayu ne ci turi sallallahu alayhi wa sallam la bokk waaye dana firndeel it ne mboolem ku mas a am lu baax ku mas a am jikko ju rafet ku mas a tedd ku mën a doon jikko yu baax yépp daal tasaaroo woon ci ñu baax ñi suñu boroom da koo jël dajale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nag mu am ci yonent bi sallallahu alayhi sallam loo xam ne nag amul ci keneen ku dul moom kon huwa moom annaasu mooy li suñu boroom wax ne inna ibrahima kaana umma sidna ibrahima aw xeet la ci mbaax ci yiw ci tawxiid ci sell ci rafet jikko ci waaye sallallahu alayhi wa sallam itam donte dañ ko roole woon Ibrahima itam waaye moom itam mooy annaas dafa taxaw taxawaayu mbindeef yëpp ci mbaax ak ci yiw waaye noonu mu nekk itam nag annaas noonu la taxawee itam nekk almizaan mooy balance bi ci lañuy natte mbaaxu képp ku baax bu ñëwee diw ku baax la rek danañ xool ba xam jikko ji ñu koy taggee ndax bokk na ci jikko yi sallallahu alayhi wa sallam jikko wam déet ñu baax ñëpp ñu ngi leen di natt ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñaari baat yooyu nag doy naw tagg daanaka bu gi sëñ bi yemoon mën naa bañ a àggale sax xasida gi huwa naasu wal miizaanu ni'mal mumakkanu mu ne kooku daal amul moroom ku am daraja kuñ darajaal ku am wàccuwaay ci boroomam amul moroom kon mbokk yi kii mooy ki Sëriñ Tubaa doon xamle xam gën a leer dana gën a gën a am solo waaye rek ñu doon jéem a wéyee ndigal loolu xam ne jubluwaay bi rek mooy ñu xam ne yenent bi nii la meloon waaye waxuñu ko rek ngir ñu yéem ko wala ñu yéem sëriñ bi ak mën a woyam wala ak mën a taggam wala ak mën a bindam waaye ñu xam ne moom sëriñ bi li mu jublu ci wane ko mooy ñu xam mooy kan ba mën koo roy ba mën a am jikko yu baax yoo xam ne bu ëllëgee bu ñu fi jógee ci gàmmu gi ba bu ñuy ñëwaat déwén fekk ne am na lu baree baree bare loo xam ne suñu borom defal nañu ko ci jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sangub jikko yàlla ñu yàlla ma ñu fekkaat yu baree baree bari wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh